bu loolu jàllee itam nag kon nu ñëw nag ci liggéey Touba ci kanam bi fas yéene soññante bu baax a baax waaye ñu jiital ci sant leen ndax yéen a ngi woon ci liggéey bi di liggéey ba firnde yu bari feeñ na ci ba liggéey bi feeñ ak tey sëriñ Modou Seck ñëw fi yëgal leen ko ñeen ñëpp ngeen maase nekk ci di ko yaatal di yaatal ba agsi bi ba loolu ràññeeku na kon noo ngi leen di jotal nuyoo sëriñ bu Mbacké mi nga xam ne mii mooy kilifa ak liggéey bi waaye di lañ jotal it nuyoo sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Abibu bu mag imaam mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ak kilifa yi topp ci moom ku ne sëñ moom bi ñëwoon ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk noonu nag nu topp ci ñoom fu nu dem yaatal fa liggéey bi seenu tur wax itam lañ ca xam ci mën a leeral ci laabiré goo xam ne gi dana tax kenn ku ne sawar a dugg ci liggéey bi ndax Touba ci kanam yàlla dafa dogal lay mbir moo xam ne dafa leer naññi amul dara lu ku ci nekk ku ci ku ci ku ci bëgg a dugg boo gëstoo daal di gis loolu dañ loo tax a dugg ndax euh, mbir mi bi mu tàmbalee yàggagul defe naa ñetti at yi ci lay war a tool bi fi ndax dafa ne 2016 la tàmbali noo ngi ci 2019 boobaak ñu fi fi Touba ci kanam réalisé kenn ku teg nga ci sa bu dul woon loolu itam waaye jëmmi Serigne Touba ji ne ci biir liggéey bi rek jar na ko bu Cheikh Amadou Mountakha ndax bu fekkee mbooloo dafa judd ñëw gaaral la ko sart ya mbooloo may nekke nga ànd ci ak moom dugg ci lépp nga nekk ci kooku kon falees mën a yem te ku ciy man ci jëfit suñ mënta xaamal la ci man ci jëfit Touba ci kanam ndax weesuwul mbooloo mi ànd nañ am nañ carte membre aw carte ak moom dañuy dagg ay rusi dagg rusi dañuy joxe solide sociale yi yaa ngi ciy joxe foofu lees mën a yem doy na ci sëkk ci Sëriñ Tuubaa def nekke noonu ci mbooloo te mësta am te moo waxal boppam ba ñuy doo tàmbali ne am na ci yaakaar bu wóor bu ñu demee ba mu yàgg mu ne nag léegi weesu na yaakaar yi am na yàqin ci ne liggéeyub Touba bi Touba ci kanam bi dana dem fañ fana àgg fuñ ko su foogi wut waxtu bu gisante kilifa yi loolu leen di wax ba noppi it lu ñu lu ñu ne nangam ji xew na mu yëkkati alalam def ca wax ci kàddoom yoo xam ni doy na soññee ci képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci liggéey bi sëñ te ñun ñëpp amuñu benn njëriñ bu dul bu saxee ci jaamu yàlla liggéey sëñ Touba lañ war a teg kon liggéey Touba ci kanam bi noo ngi leen ci soññ bu baax a baax liñ mi def li Touba ci kanam def gis ngeen ko waaye lu ngeen ci def doyut ndax euh, li ma ko wax sànq rek maanaam liñ ci liñ ciy def ci lu baax ëllëg lañ koy soxla te bu boobaa ku ci ku ci gën a def lu bari yaay ëpp pay foofa te foofa kat dara doyu fa ci lu baax ab liggéey ngi nag boo xam ne dafa mel ne liggéey yi mujj ñëw ci la bokk waaye liggéey yi ëpp yaakaar ci la bokk njabootu sëriñ Tuubaa gépp a ngi ci kër sëriñ yëpp a ngi ci tam doo ngay sëriñ Tuubaa yi koy yëg yëpp it ñu ngi ci ndax juróom benn fukki réew ak benn fi ne liggéey bi duggagul na fa yoo xam ne ma ngay dox guddi ak bëccëg ndax ab liggéey bu fi mas tàmbali ba yoon wi sosoog tey benn weer ñu mën caa dajale juróom quatre-vingt nangam million musti fi am te te te weer wee weesu am nañ ko te yaakaar na ni bii mën na ko ëpp ndax liggéey baa ngi dox kon euh, ku ci bëgg a bokk bokk bokk bokkal ku ci bokkoon it gën a la góorgóorlu te koo man mu bokk ci nga bokk ñaar téeméer yi ñu ciy laaj ngir weer par weer bu nekk kenn ku ne na nga fexe ba na tuut ci yow nga fexe ba dolli ko waaye sëñ bi mu ko génnee xalaat bi dafa am yërmande ak it xam ne li sëriñ Cheikh Amadou Mbacke waxoon rek te waa liggéey bi di ko waxtu ne mooy laaj luñ man di ko def fuñ xam moo waral ñu yemale ko foofu waaye ku ko weesut loo ci man ba milliard loo man Sëriñ Tuubaa jar na ko carte de membre yooyu ñu ji tudd tamit euh, baax na ci nit ñi di ko daggaale ndax jamono ji euh, foo dajale alali xaali xaalis tubaab yi dañuy bu yàggee ñu am ci yoon te buñ ci yoon bu ñu gisul ne buñ léegi xaalis baa ngi ni bari ana ñu ko dajale ñu naan diw di bind ci kayit doyut waaye bu ñu amee carte membre ñu ne waa ñi dagg carte membre yi ñoo moom xaalis bi boobaat nañ xam ne jaar na yoon kenn du ci ne donte liggéey bi Sëñ Tuubaa sax kenn mënu ko yàq waaye loolu dafay ëpp toll foofu boo tax na wutal nañ ko euh, tur wutal ko euh, ay kayit yoo xam ne yii lépp loo xam ne fu ñu war a jaarale rek ña koy borom xam-xam ña na ci wutal nañ ko ko fépp foo xam ne fii lu yoon wu mën a jaarale tam ngir liggéey bi bañ a yàqu wala gën a dox mhm. ña nga ci am na ñoo xam ne du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg Touba ca kanam mooy seen lépp Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne moo jëkkoon sos liggéey bi ren sax dafa am doom fa tudd ko Touba ca kanam kon xam nga ko kooku yéem jeex na te te itam te itam wane na ci yoon woo xam ne ndax bi ñu ko sosee liggéey bi nga xam ne ci moom la so woon ba ñuy ba ñuy sol dañ mm-hmm. ñu demee moom yàgg ñu ne jamono kat léeg-léeg dañoo war di soppi mm-hmm. bu njiit jiitee ba mu yàgg dañoo war ne nañ soppat jox keneen mm-hmm. am na ñooñu bu doon ñoom bu ñu nee nañ soppat mën naa mën naa gis seen waaye dafa daal di nangu daal jëpp boppam sëñ Touba ñu jël sëñ Abdou Fatah Guèye def ko muy président bu topp ci moom Touba ci kanam noonu lay doxe ñëpp dañoo bennoonte jumbalante am na ñoo xam ne fi ne nii dañoo mel ne ñu bokk ndey ak baay te mosuñoo gisante diggante ci whatsapp bi rek ngir liggéey nga ànd ak moom ca loola loolu nag moo war a daj ba àdduna bépp bokk ci kon ñuy sëñ bi xam naa ne barab bi bu ñu toppee waxtaan wi ndax moom bu ñu si xaajee tàmbali wax ci Touba ca kanam damay mel ne du ma mën a bàyyi waaye damaa bëgg rek ngeen xam ne dañu day lu baax loo xam ne dañoo bëgg ñëpp jariñu ci kon da ngeen ci jàpp seen kam kattan lu ngeen ci gën a jàpp kàtt yi nañ fexe ba saa bu ñëwee na daal di jeex waaw kursi yaa ngi nii nañ fexe ba saa bu ñëwee na daal jeex yooyu ñaar téeméer yi la waaw ñu fexe ba daal carte yeneen yi am nañ am ngeen douze mille waaye yëpp ñaar téeméer ngeen am moo fi nekk moo waaw baax na ba tey waaw ngaa de membre yi kon mi ngi nii léegi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel waaw te Cheikh Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon loo xam ne mënees na koo déggee ci tubaa ca kanam dafa waxoon ne Touba ku fi am pujum néeg bu ëllëgee mooy doon sa seeres digg ak sëñ te lii ku ko am mu nekk ci sa poos foo man di nekk ci àdduna dañ xam bu ñu nekk kii ah kii kat waa Touba ca kanam la te boo ëllëgee bu ñuy laaj loolu mën ngaa génne si yoone ko te boo ko ci defee itam fii ba àdduna yi tukki nu dëkk ba mel bu ñu nee ana ña defaroon Touba nga sañ a yëkkati sa loxo ne ca laa te loolu lu am solo la waaw ndax kat bokk ci mbir te néewoo ca mbir ma amul njariñ boo bokkee ci mbir dangay ngay ne ca biir mbir ma loolu mooy da ngay jënd sa carte de membre di cotiser par weer at mu nekk nga matal loo ca mën a dolli dolli ko social yi nga xam ne moo nekk ci biir tamit nañ ci bàyyi xel bu baax am na social yu ñuy def jumaa ji moo ci jiitu ñooy jàng kaamil ci alxuraan sëñ Tuubaa ci jumaa ja bis bu set danañ jàng juróomi kaamil noor ak nawet te amuñu menn xëy mu dul jàng alxuraan mooy seen liggéey mille neuf ci gànnaar la ko sëñ bi sosoon ba léegi boobaak léegi mës ta taxaw ñaar fukki nit ak juróom ñett lay doon yoo xam ne ku ca manqué sëriñ bee wutaat keneen mu jël sa place ñooñu Tuubaa ca kanam dañu fa ak ak imaam yi nga xam ne ñooy jumaa ja ak ñeenoo nodd ñi koy ci di jumaa ja waa ji kanam dañoo jël engagement bëgg leen a yoral seen dund engagé bokk li ñuy jaayante sëñ Tuubaa ne bu dee lamp yi bu dee waaye alxuraan yi ngi jàng sëñ ko moom boppam directement ba tax na loolu tamit dañuy def weer wu dee wu ne fu le premier ñëwee lu waaye am ba la dix lu waaye am rek nga lamb ci sa poche def ci loolu nag bokkut ak ñaar téeméeri ñu leen ñu leen ci wutal seen dund dañu bëgg a dem ba lépp ñoom ñu bañ a manqué ti dara loolu lañ bëgg néew doole ñi nga xam ne ñoo nekk tubaay Touba tam euh, ñëw fa gàddaay jóge ci seeni réew ngir yaakaar sëñ Touba ak ku leen dimbale ñooñu Touba ci kanam a ngi leen defal ay ndimbal yu mat sëkk tabaski kii bëkki dem moo ci mujj dox nañ leen ci kodday nangami junni yére utal nañ leen ko xaalis yi nga xam ne yu leen ay nag ñu tabaski ko te ak néew doole amuñu ko woon koor defal nañ leen ko xam na ci ñooñu it da ngay am koo xam ne mbokkam day wér di wala dara mënu koo faj amul lu ko faje mu ñëwee ca Touba ca kanam Touba ca kanam topp ko ba luñ ko ci mënal ci faj ñu def ko ci nangam yi nit defal nañ leen ko lamp yee defal nañ ci ndox yee ñooñu dëkk sancaan yi wutal nañ la ay ndox daara yi nga xam ne dañuy jàngal jàngale alxuraan ndax da nga gis ku walanteeru ne damay jàngale alxuraan te amut fu mu ne ñooñu ñu ngi leen ci ñoo ngi cay jàppale bu wér wala ko ne am naa fu ne waaye aw ma mbaar bu toog jàngale dañ leen koy wutal waaye am na am naa am naa daara am naa mbaar waaye aw ma wanag doo ngay dem ñu leen ko loolu tàmbali nañ ko daaw njëriñ defaat nañ ko nga ne lépp loo xam ne daal luy tax a mën a toog ci dëkkub Serigne Touba ba jaamu yàlla Touba ci kanam jël na engagement boobu ci ko dox wér yaram tàmbali nañ ca ña ngay tabax ay hôpital am na ci benn bu noppi ba ña ngi cee tàmbalee faj yeneen ñeent ngi ci yoon yoo xam ne ci ba tàmbali nañ leen am ci yoo xam ne leen bu noppi bu soobee yàlla te benn bu ci nekk dafa mel ne dañ ci def cent et quelques millions euh, université bii sëñ Muntaxa di tabax keroog ba nga xamante ni bii sëñ baa ngi teg première pierre bi Touba ci kanam indi na téeméeri million jox ko ko ne ko noo ko barkeeloo ci liggéey bi teewut ñu engagé waat jëlaat fa beneen bâtiment boo xam ne 800 millions lay jar jox nañ bi joxe na ko ba ñu ngay tàmbali liggéey bi moom itam Touba ci kanam ci loolu lay dox sëriñ bi nag nangu gim nangu liggéey bi tax na jël na terrain boo xam ne ne Touba ci kanam tabax leen fi seen sees def seen i bureau seen i seen liggéey dox waaw kon Touba amatul lu ñu nattable amatul lu ñuy wax sëñ Touba ci boppam moo yor Touba ca kanam di Cheikh Mountakha nekk ci bopp liggéey bi di ko jiite waaw te ku boo demee ci YouTube bi boo defee Touba ci kanam rek gis nga image yi ba fi sëñ Cheikh yi Mokhtar yàlla na ko yàlla doon leer nekkee ba léegi moom moo joxe woon ndigal ñu tàmbali liggéey bi yàlla na ci loxo ci njabootam ak sëñ Touba boobaak léegi liggéey baa ngi dox kon nag loolu moo ne woon nañ nga ko ci laal wax ko ci donte mën nañ cee fanaan di wax ba asamaan set te du tax ñu doyal ci ngeen doyal ci tax jëmi sëñ Tuubaa ji rek la waaye ngant day am léeg-léeg ñu war bi sedd na guddi na te ñu bari jëm nañ ko sori waaw kon daal ñu xam ne itam nag Tuubaa ci kanam gi itam doonut loo xam ne dañ koy bàyyee ñenn nit ñëpp ko moom ñëpp ko bokk këri sëñ Tuubaa yëpp ci bokk ñëpp ci yem sëñ Tuubaa rekk ko moom duñ ko bàyyee jëwrin mu di ko doxal mhm. jëwrin du ko bàyyee ci ñu di ko doxal mhm. waaye nag jëwrin di koy jël teg ko ci loxol kenn ci njaboot gi mhm. kooka di ko doxal luñ bokk luñ am ñu bokk ko mu leer nañ ñëpp gisandoo ko Touba ca ci loolu lay dox kon amul lenn lu ci lëndam bu ko defee nag kon suñ seex noo leen di gërëm suñ suñ suñ pap yéen itam yéen ñëpp noo leen di gërëm di leen sant di leen gërëm waaw yëg nañ seen taxawaay sant nañ leen gërëm leen waaye nag dool leen a jàpp bu baax a baax fii ñu toog tey ak sees ba ca Touba ca Touba ci kanam ñëpp ñoo yem ci sëñ ci barab bi lañ kon nan dalal seen xel bu baax baax te góorgóorlu te xam ne ku ci dugg tey ak ñëwoon ba démb ak bërki démb ñëpp a yem ci liggéey bi kenn ku ne rek bu ñaar téeméer xas na ci def waaye ëppalante ci ñaar téeméer nag mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii daan wax ne wilaay ak sëriñ bi mi ngi ci pastéefi taalibe yi kon naan façon liggéey sëñ Touba li Cheikh Abdoulaye daan wax ku ku ko defal loo mu defal loo mënut boo ko defalee loo mu defal la loo jomb sëñ Tuubaa la mu mënoon ko gën a dàq yàlla noonu yàlla dool dimbali noo ngi ci barkeem mbooleem jafe-jafe yi fekk ci réew mi yàlla na ko yàlla fekk noo ngi nuyu waa Argentine gépp di nuyu waa adduna bépp waaye noo ngi koy teg ci loxol waa Argentine gi kon sëñ Pape kon yéen mi nga xam ne yéen a jiite liggéey fii yëf yaa ngoog Tuubaa ca kanam gépp it ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen def ne seen bopp ñu ngi leen di ñaanal ñoo ngi sàkku seen i ñaan xam leen ne daal ñëpp benn bopp lañ kon nag yal noonu yàlla dool dimbali waaye nit ngi leen di ñaanal waaye noo ngi sàkku it ngeen ñaanal nu nekk suñu kanam yor liggéey bi Cheikh Abdoulaat moomu ak sëñ Abibou sëñ Seck ak sëñ sëñ Seexu Naa Mbacke Mbacke ñoom sëñ Cheikh Mbacke Omar ak sëñ ak mboolem kilifa yi nga xam ne moo ko doon lim mën naa yàgg nekk ci kanam liggéey bi noo sakk sàkk noonu ñëpp ñaanal leen ba menn mu ndog bañ am ci liggéey bi liggéey bi sëñ Tuubaa bi ñu bëgg yóbbu ko fa fa mu war bépp foo dem sas nañ sa jëwriñ ña nga fa joo xam moo jiite liggéey bi ànd ko ak ko àndal kon na kàddu yaa ngi noonu nuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla nañ yàgg a teew ci jataay bi Sëriñ Tuubaa ci bu suñ toogee Sëriñ Tuubaa nangu ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu رسمها بجاي خير ما نبات وجل راي مسكني توبابات مثل اسمها بجاي خير ما نبات man la suñu jéego yi tey itam daa bokk ci liggéey yi nga xam ne benn jiitu ko ci liggéeyu sëriñ bi te mooy liggéeyu Touba ci kanam li waaye Touba ci kanam moom tur yi yóbbaal na lépp